dajal tey bi eh, liir naa ci suba ci presse bi ñuy topp que Alioune Sarr bariwul wax kon su wootee xam naa ne am na lu rëy lu war a wax sauf ko moom li ëpp ci li muy wax su drapeau chef de l'État see rek la effectivement ñi bind loolu juumuñu drapeau chef de l'État bi moo gën a tax ñu woote daje bi tey su ci yàlla àndee fileeg fukki fan ak ñeent le 28 lañ koy def ci weer wi mbuur à part drapeau chef de l'état bi ñu waxtaan peut-être ci xew-xew bu rëy boobu muy wax Jeux olympiques pour tout tànk yi nar a am Sénégal fi lekk eh, ñetti at ñetti at day gaaw a yegg si fédération internationale yónnee fi délégation waxtaan ak ñun wax yaakaar gi ñu am ci comité bi pour seen réussite ci parti lutte bi wax ne aussi su fekkee ni ñoom niñ ko bëggee am na eh, yaakaar nañ ne dinañ am téeméer ak juróom fukki place pour xale yi bëre ñuy bëgg genn wàll gi doon ay xale Sénégal kon nag loolu muy sas bu rëy boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci teel a jóg pour yëf fi bañ a doon rek bokk nañ te ñu bokk bokk bu ràññee boo xam ne Sénégal dina ci jëlee dara su loolu passé aussi saison bi bam mu commencé ak léegi nit ñaa ngi bëre d'abord acteurs yi mooy mbër yi mbër yi def bëre dóor junne lañ ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ñaar fukk ñaar def bëre simple ñaari junne ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom c'est bien ça ñii def lutte olympique bi téeméer lañ ak ñaar fukk ak juróom-benn ñii am licence yi promoteur fukk ak juróom-ñaar lañ ñi am licence yi promoteur bëre dóor fukk ak juróom-ñaar ñi am licence promoteur bëre simple ñaar fukk ak juróom manager yi jënd seen licence ci saison bi fanweer ak benn. ci bëre dóor euh, lii may wax mooy ci journée tey bi fii ñu toll fanweer ak ñett lañ li amagum ci komba ci bëre dóor combat la mooy ñaari mbër yu daje am nañ ñetti téeméeri combat ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaata bés ñoo am fanweeri bés ñaata association ñoo. mooy écurie yi école de lutte yi ñoo affilié ci CNG téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar ci diggante bi aussi daje nañ bureau CNG bi ak li ñuy wax comité directeur bi defagum nañ ñaari daje waxtaan nañ et tournoi CEDEAO bi doon am Dakar benn at wala ñaareel yu nekk waa CDGS mooy waa CEDEAO woon na ni ñu ren duñ def tournoi mais dañ bëgg ñu toog daje waxtaan xayma jéego yiñ defagum ci at yi passé ak naka lañ war a continuer tournoi yi bëgg nañ ko def ci biir mois de juillet bi bala weer way dee su ci yàlla àndee nag ñun comité national ñun Sénégal bëgg nañ su waxtaan woowu jeexee parce que réewi CEDEAO yëpp dinañ ñëw fukk ak juróom yi ñu mujjeel ko ci benn combat de lutte sans frappe c'est-à-dire lu nuroog tournoi CEDEAO mais ay sénégalais ca booba aussi dinañ peut-être su ngeen posé ki dinañ leen wax naka lañ fas yéene tànni mbër yi nar a bëri ci tournoi boobu. demoon nañ fi Tunis pour les championnats d'Afrique de lutte olympique wante résultat yañ fa jëlee en tout cas Sénégal mosul am résultat yu bone noonu ñaari medaay rek lañ am benn médaille or ak benn médaille de bronze il benn médaille d'argent mais li gën a am na sax lu baax parce que Adama Diatta bi am médaille door bi moom lañ def le meilleur lutteur africain des championnats de Tunis wante nag suñ comparé ak liñ doon am at yële passé loolu yu ñu ba tax bañ jógee foofa dajale na ñiy yëngatu yëpp ci lutte olympique bi ci comité direction technique bi le bureau les région yi waxtaan nañ jéem seet nañ lan moo ko waral yaakaar nañ ne dinañ ut xam nañ bunt yi ñu war a jaar pour loolu mu changer lan moo des ci saison bi ci mois d'août bi am na les jeux de la jeunesse yu ñu war a defee Maroc ci dëkk bu ñuy wax Al Jadida soriwul tout trop Casablanca ci mois de septembre bi ci lañ war a dem championnat du monde de lutte olympique fale ca Kazakhstan voilà li ma bëggoon a wax en introduction léegi nag ñu jox leen kàddu gi ñi bëgg a poser ay question poser question ñun nag comme ni ma ko waxee woon léegi ci nasaraan amul sujet buñ mënul a tontu li ñuy ñaan rek mooy lépp ñu def ko ci comme ni ñu ko sunu waajur jàngale ci yar ci fulla ci ak fayda liñ ciy wax mooy ah, samedi bi passé rek bi bureau bi am ak comité élargi bi waxtaan nañ ci wax ci insister ci pour ñu yor région yi góorgóorlu ba suñuy ñëw bés ba ñu def en sorte que mbër yi mun a ñëw ak pois bu normal am ñu ne lu tax ñu jël mbuur te jëluñ Thiès parce que mooy capital régional bi ñu ne Thiès mos na doon at biir cees def na drapeau chef de ci biir région de Thiès Mbour Joal def na ko bi yoon buur la ñu tànn ñu laaj ñu aussi lu tax région de cees rek foofu nag toon naa suma mbokki pël bi parce que nee naa ko xam naa day soog di yegg Paul dafa ragal kurpeñ moo tax kenn gisatu leen ci bëri dóor bi ba pare peut-être euh, bareetuñu bër wante presque région Sénégal yëpp dem nañ fa def drapeau chef de l'État foog naa ba mu des maatam ak Podor ak Kédougou ñetti région te ak Sédhiou voilà donc def nañ ci dix région eh, mun naam déwén incha allah ko fekkee te tal ko foofu la ñu jëm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 suba samedi am na combat bu mag arène nationale ndax jël nañ suñu matukaay yépp euh, combat bi di rëy na rëyul làmb ju rëy nag yàgg na am ci réew mi mais comité national aussi yàgg na jël responsabilité ci bis yi dañoo am habitude même balaa combat bi am su desee juróomi fan wala ñeenti fan ñu dajeeg ñi ko nara a ŋànk yépp toog police gendarmerie ñépp ñu toog waxtaan ba seet nu ñuy def pour yëf yi tegu ci yoon te suñu ci yàlla yóbboo incha allah ku bëgg a seetaan si na seetaan si te na dalal xelam mais ma profité ci loolu pour poser ay problèmes yu may dégg ci suñ millier bi bu njëkk bi mooy arène bi taaru na waruñ ko woon a defee noonu ay places yi ciment lañ ñu waroon a defal c'est comme ñun ñu nekk ci làmb vraiment dañu manqué nit dañ manqué nite te nag ba ji kanam borom moo koy faj yaakaar naa ne ku dégg wax jooju yow ci sa bopp war nga def en sorte que ku li ñuy wax ku lay xaar ci gaali xaj bu mu la fa fekk mais loolu problème yi askani làmb yëpp la ñun ñi am habitude di wax les responsables <coughs> pardon moo gën a yaatu Demba Diop <coughs> te lu nekk tëgg nañ ko Demba Diop problème bi mooy stade bu mun a jël ñëpp ñu bëgg a seetaan spectacle amul fen mais man tey su ma doon dogal fii ci Dakar kenn dootul tëgg làmb feneen lu dul arène nationale parce que place yi baax na conditions yi baax na war na mën a nekk foofu nañu góor lan la ñuy ragal lañ lañ dul ragal état bi moo yor sécurité citoyen yi damay ne yàqkat yi na état bi góor góorlu ak ñun ñi ngànk làmb ku gis ku nar a def lu bon ñu dénoncé ko de sorte que yàqkat yi ragal la ñëw ci place yu silvissé yi pour def lu bon loolu rek mooy solution <coughs> alors euh, seen làmb parce que yàgg naa tooñ Dembélé di ko wax seen làmb doonatul sunu làmb ma ne ko mu posé ay question ci ancien ministre Daouda Faye wax ay at ay at jëmale ci CNG mais balaa may tontu ci loolu dafa am lu ma njëkk a wax ma ne ay nit suñu àndee bokk jëmukaay dañuy yëkkatandoo di dóorandoo mun na am ci li ëpp li ko olof yi waxee wax ju ñaaw dëkkul fi mu jëm fi mu jóge la bokk am na yu bari yu ñuy wax ci yenn presse yi dimbalewul làmb te ñu ngi dem ba topp promo sponsor yi bareetuñ gars yi bare mais kanay jël alelam di ko dëppale ak lu ñaaw donc nañ seetaat suñ toogukaay dañ seetaat suñ doxalin suñ buggee làmb ji gën gi jëm kanam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 nawle ci biir du moom lay tànn voilà autre question fait office de CRG c'est normal parce que nous le, nous le souhaitons ainsi pour éviter les conflits d'intérêts on a constaté partout il y a des comités et eh, un comité national et régional il y a des problèmes relationnels qui fait que souvent le sport est plombé Et nous sommes toujours battus pour qu'il n'y ait pas de, tant que nous serons là, qu'il n'y ait pas de comité. Mais nous avons des structures qui fonctionnent. Votre question en comité directeur a été posée. Effectivement, on va dire, ils ont parlé seulement des arbitres parce qu'ils disent, parce que l'arbitre peut de façon subconsciente agir en faveur de Dakar. Mais je pense que cette année, vous ne reverrez pas cela. Hein?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 arène nationale benn fan ñu ubbi benn salle on était moins de 200 mais soo xooloon toilette yi nawet jour boobu nga war a xam ne fii foog mu am toppatoo soo amee plus de 10 toilettes soo amee plus de li nga soxla am ay ascenseur am ay chaise entretien bi foog bu am budget budget bi peut-être lenn lii état bi war na ko mën a indi li des promoteur yi ni ko parce que nag xoolante ci bët waxante dëgg promoteurs yi ñëwuñ pour maye combat de dañ jël seen alal pour investir pour am donc war nañ seet naka la ñuy participer ñoom itam au développement et ça c'est important beneen bi accréditation yi kooku du yéen rek a ko jooy ñun ñi depuis parce que en un moment ñun ñoo ko doon téye en mais à 48 heures 70 heures soññoo ko ñu woote CNG distribué ko en un ñu bàyyi waat ko ci loxo promoteurs yi mais ñu constaté day soox loolu ngeen di jooy am na moment boo xam ne ñun même waa bureau bi dañ koy jooy pour mun a kii depuis daaw on a encore pris la décision CNG jëlaat en charge les accréditations et j'ose espérer que responsable ñu ngi ciy liggéey pour qu'au moins comme ni ñu ko waxee 24 heures avant ku nekk jot accréditation xam fan la jëm xam naka lay mën a liggéeyee parce que ça c'est il faut que collaboration bi am mais nag foog mu am ci intérêt ñëpp 94 bi ma njëkkee yegg si yéen presse bi laa njëkk xeexal ça a été très difficile parce que dañu fekkoon boobu presse bi amul limite même ci biir enceinte bi dañuy dugg pour photo walla pour filmer damay ñëwee ni amul benn stade bu corps étranger di dugg en dehors des acteurs que les arbitres def nañ ko fi coow devant les ministres de la république ñu yaakaaroon ne suñ ñëwee dóor ci ministre yi ma dellu gannaaw bañ bañ ñëwee fekk ministre yi toog ñu toog ñu poser seen problème benn ministre tontu ma ne leen fii benn ministre du tontu je suis le seul responsable ministre bu ci tontu ma jox ko yëf yi ñibbi je le cite c'est un doyen du corps, de votre corps, du Djen. Il était en ce moment en activité aux affaires étrangères, qui a fait le rapprochement entre la presse et finalement nous sommes d'accord. J'ai dit,